asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala barakaatu barakaatuhu bokki jullit yi bokki taalibe yi ñu ngi nuyu ñëpp di leen ziyaare bu baax ñu di jiital ci nuyoo bi ak Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacké xalif général des mourides di ñaan mu yàgg fi lool te ànd ak wér ba mboolem li mu yéene ci liggéeyu Serigne Touba matale ko te ñu ànd ko ak moom ñu am nag euh, tawféexi jataayook Serigne Cheikh Bassirou Mbacké ibnu Serigne Abdoul Khader yor kàddoom jublu gi nag mooy xam ngeen ne àllarba ji nga xamante ni mooy war a doon benn fan wala ñaari fan ci weeru tamxarit atum junne ak ñeenti téeméer ak ñeent fukk ak ñett ci ati gàddaay yi war a dëppoog incha allah fukki fan ak benn ci weeru août deux mille vingt et un Cheikh Mouhamadou Mountakha dafa joxe ndigalul njàngum xasida mu yaatu di bis bu ñu jagleel xasida yi Serigne yi mu dale ci jumaa ji ak li ko wër. ba ci mboolem pénc yi nga xam ne yëpp moo nekk ci dëkk bu tedd bii di tubaa ni mu ko baaxoo defee rek lépp ngir dellu ci suñu boroom ak ñaan ak fàttaliku li nga xamante ne mooy ndigalu Serigne tubaa loolu waral ñu teew fii ak Serigne Cheikh Bassirou Mbacke ibnu Serigne Abdou Khadr mu am kaddu yoo xamante ni dana ko yëkkati jëm ci bokki taalibe yëpp ak fu ñu mën a nekk ci ndigal loolee nga xam ne mu ngi bàyyi ko ci Cheikh Mouhamadou Mountakha Mbacke xalif général des bokk jullit yi bokki yi alaalamu islaam yi bépp ñu ngi leen ñu ngi leen di nuyu ci turu Cheikh Mouhamadou Mountakha al xalifatul aam li tariqati al muridiya xafidahu taala wa raahu wa ayadahu min nasrihi di nuyu bokk jullit yëpp ñu bokk lislaam yi di nuyu bokk taalibe murid yi nga xam ne ñoom la sañ a digal sañ leen a tere ni ko kilifa bu jëkkee daa waxee rawatina Cheikh Saliou Mbacké di woote ci woote kàddu yu gat ci ndigal li nga xam ne Cheikh Mouhamadou Mountakha jox na ko ndigal daaira Hizbut Tarqiyyah teg lépp loo xam ne jëm na ci wàllu organisation ci njàng mi nga xam ne sëriñ bi sant na santaane na ko. muy bis bi jëkk ci at mi incha allah bu àndee dogal bi yàlla euh, wax ne ab yéeg-yéeg la diggam ak borom ab yéeg-yéeg la diggam ak Serigne Touba loolu nag kon ab taali bi moom lay wartee fa mooy bu ndigalu sëriñ bi duggee rek mu bañ mu mal ko rek ngir xam ne loolu mooy li koy jëriñ. wa ma huwa chalabu l ixtiyaari li xusnihi dannihi bila inkaari wa tarku l ictiraadi mutlaqan walaw bi baatin alayhi fi ma qadrahu kon loolu mooy lii rek nga xam ne sant na fa ñëpp mboolem ñi nga xam ne ñoo yëngatu ci wàllu xaside yi ngir ngeen xam ne ci bi Tabaski gi des ñetti fan altine ji nga xam ne ci la ko sëriñ bi jàpp ñu jàng ci alxuraan ci jumaa ji ak ci jàkk yëpp ni mu ko santaane woon ñu def ko ci mbooleem foo xam ne ak jullit teng fa rawatina foo xam ne taalibu Sëriñ Tuubaa ga fa yëg ngir seet eh, digliwaat bis bii wax ne ak ak yëg-yëg la ak teewlu suñ digg ak Sëriñ bi Sëriñ Tuubaa kon nag loolu la sëriñ bi daa wax eh, jëw wax jëwriñu Cheikh Fati da def bu noppee bu ko nee fas leen ci fas leen ci du ngeen bëgg ñu ne ko mbàkke nañ bàyyi nga fasal ñu ndax ñun bu ñu fasee dana am lu ñu fàtte te yow sax fas day gën a mat kon ñun li ñu ci war rek mooy jëfe ndigal te bàyyi ko moom mu fasal boppam te xam ne bu fasee rek ñëpp dañ tàbbi ci biir kon noonu moo santaane rek fas yéene ñëpp ni mu ko diglee xam naa ñoom danañ ko gën a leeralaat ci penc yi nga xam ne fépp foo xam ne penc nga fa ñu yaatal ko fa. waaye rawatina ci pencum jumaa ji ak li ko wër loolu noonu la ko sëriñ bi santaane te wax na ma it ne gëm na ne bu mu ko defee itam dana indi jàmm moo ko wax ci la am ñoom dana indi jàmm ci àdduna si dana indi jàmm ci réew mi tawat jiit it suñ boom danañu ko saafaral màggalu Tuubaa gi ñu dégmal itam yàlla mën nañu caa yóbbu ci jàmm ñu génn ci ak jàmm te lañ cee seentu ak lañ cee ragal bañ lañ ci séntu ñu am ko ca te lañ cee ragal ñu bañ ko ci am loolu moo ko wax ci la ñoom kon nag lu su rek fas yéene ci eh, soññ ñëpp rek ñoo xam ne ndigalu sëriñ bi la te eh, sëriñ moom ndigalam ci lañuy jëriñoo kon dañ koy ñaanal mu yàgg fi loolu te ànd ak wér xam ngeen ne eh, kuréel xaside yi kenn mënu ko tudd te tuddoo sëriñ xam sëriñ sëriñ Soxibu ndax yitt jëm ci ak taxawaayam bi ñu di ko ñaanal ci barkeb sëriñ Tuubaa mi nga xam ne moom la soobu di ko liggéeyal yàlla na ko ci gëtt gën a gàttanu gën ko ci defal ndam defal na ko ci ndam ba soo sa waaye na yàgg yàgg ko taxaw yàgg ko ànd ak ñoom yàgg ko ànd ak mboolem si xasida yëpp. yéen ñi mu ko teg ci seen loxo itam ngeen xam ne Serigne Touba moom saa su la sante dara rek ndam laa nga ci wet ga ndax bu la ko sante rek moom ndam la ñu ànd ndax waxoon na ko ci làmmiñam ne xam ngeen xam ngeen nu may xamee li ma leen digal bi xam def ngeen ko déet. ñu ne ko déedéet Mbàkke mu ne waxtu ma sante nit lëf dee am lu jug ànd ak moom bu jëfee ndigale mu dëkk moom mu ne bu jëfewu ndigale nag day dellu si waat dama xamal ne dem naa waaye amu fu ma ne kon nañ xam ne luñ ci jëf rek eh, pay ci loxo sëñ bi ne te dana àgg jëf dana àgg pay ga àgg ci eh, tuyaaba ji dana àgg ci jëmmi ko ko jëf kon na ngir bañ a guddal ndax comme ab woote la ñu ñaan ñu àgg ci ak jàmm te day day ceeg tawféex te def ko ni ko sëriñ bi bëggee wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakatuhu